asalaamualeykum mbokk yi ñi ngi am mbégte di leen yëgal xew-xewu diine bu am solo te mooy conférence islamique maanaam xale yi nga xam ne ñooy jànge ca almadrasal quraaniya daaru salaam nimzaat ñoo fas yéene amal ab tari ci leen ci liñ jàngoon incha allahu rabbi fan lay amee Jurbel quartier maam Cheikh Ibrahima Fall ci sous quartier ba ñuy wax Medina Tibo kañ lay am dimanche 1er août 2021 à partir de 9 mbokk yi xew-xew ba ma ngay door bu juróom-ñeenti waxtu jotee incha allahu rabbi ki leen ci woo nag mooy al ustaad Cheikh Adama Ka mi nga xam ne mooy saytu xale ya di leen jàngal ak di leen yar ci lislaam mi ngi ko teg ci ndigalu ki nga xam ne mooy Chérif Mouhamadou Lamine Cissé ibnu Serigne Youssoufa sise nekk kilifa diine gu mag fa la ca Jurbel ak ki nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Ñing nekk su délégué de quartier Médina kon dimanche premier août 2021 à partir de 9h fële ca Diourbel quartier Mame Cheikh Ibrahima Fall su quartier Medina Tibo mbokk yi ñëw leen wuy si ndax yàlla moo ne ya yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum kon mbokk yi xarit yi soppe yi am jàmm yi mbokki jullit yi nañu dem wuy ji al ustaad Cheikh Adama ndax ñu bokk dundal suñuy xol ci alquraanul karim jaa ngeen jëf wasalaam